sant sunu borom ni ñu bolé sëriñ bi sax dak nak ci sant sëriñ bi ne fa tabarakallahu am nañ tawfiq du reuy na mu demee woon bu jëkk yittewoo sëriñ bi rek moo nu ko moo nu ko fàggu yittewoo sëriñ bi rek moo ko mën a wutu gën a sant itam sunu mbokk yi ñu nekkal ci xaside yi xaside yi mooy sëriñ bi lu taalibe gën a fonk xaside yi gën a jéem a jox njukkal sëriñ bi kon nak no ngi sante bu baakha baakha baax a bi nu sunu borom gën xir ci xasaay ji bu ju bëggee dund dunduk texe dañuy def sunu xel ci sëriñ bi ci sunu xol def ci sunu yitte mu jiitu ci sunu dund buñ ko defee loolu mooy texe rawatina nag muccuk tey ak ëllëg rawatina defaruk tey ak ëllëg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 amiin